Sonko na manala. Sonko. xaaral ma xaaral def woy boobu noonu woy woy gaa def woy bi comme comme si mbedd mi laa nekk aye yaaye Sonko nam naa la Sonko nam naa la aywa aywa Sonko nam naa la sama woyu bopp la parce que ñeneen ñi xawma lu ñuy wax dégg naa daal Sonko namoon naa la xaw ma naa la namoon naa la moom mooy da nga ko namoon gis ko gisaguma ko te kon nag naa la Sonko Sonko Sonko Sonko naa la aye yao sonko na monala sonko na monala sonko sonko sonko na monala aye yaye sonko na monala sonko namoon nañ la sonko sonko sonko namoon nañ la sonko lu tax ñu namm la saa ñu doxee ci mbedd mi ndeysaan gis lu mel ni sañu xel di dem ci yow ci sa projet xool leen tout vert dëkk bi bien organisé billahi lii moo tax ñu nam la sonko du leneen de parce que li ngay yëgal sénégalais yi te xamuñu ko ñoom mooy lii lii nga xam ni yow yàlla daf la ko teel a may nga am point de vie bu mel nii nga am maanaam projet de société bu mel ni xool leen buntu kër yi ni ñu setee xool leen dëkk bi nu mu mel lii la Sonko am point de vue am lii mooy bëgg-bëgg sonk ci yéen billaahi te lu mun a nekk la parce que doo leen xar doo leen mbaam doo leen mbaam xuux doo leen bëy ay nit ngeen ay nit njaay ngeen tànk loxo nopp bakkan baat bëtu gémmi la ngeen nekk seen morom yi seen morom ñii gënuñu leen ndey ñii toog fii gis nga nii nii organisation bi ñii gënuñu leen ndey gënuñu leen bàyyi ñii yàlla xalima bu mu leen bindee miim adam dell miim dell lañ leen bindee yéen kon ñi gënuñu leen ndey gënuñu leen ci bàyyi loolu moo tax Sonko am yëg-yëg boobu ci yéen am bëgg-bëgg boobu ci yéen organisation bi set bi sellal bi rafetaay bi jekk bi taaru bi tout vert tout loolu moo tax bu ñuy dox ñun rek suñu xel du mos a jóge ci Sonko xamul ndax parce que lim leen di proposé ñun dañoo xam li muy saf daqaar gi mu leen bëgg a ñamloo ñun dañoo xam li muy saf mu ci rey boppam ne moom dina jël daqaar gi dugal ko ci seen gémmiñ yéen moo tax ñun ñu toog di ci bugg di ko ci jàppale parce que lii lii nii de moo am ci dëkk <laughs> lii de moo gis nga bu may romb ba léegi xool leen mais li xool leen amul lan lu gis nga nu mel ab te lii de ab rue la rue réel réel ab réel la donc gars yi les gars lii lañuy ñuy am yéene ci yéen Macky Sall ak i ñoñom vampire assoiffé de sang yi ne mukk du fi am ne non ñii ay mbaam xuux lañ ay mbaam àll lañ lu ñu mérité mooy ay tulli ndulli ay ndulli ak ay tulli ay toroxal leen ay gox yu salte te xasaw te xeeñ ay agresseurs yi leen di agressé di leen gaañ ñu gaañu di dem hôpital ñi leen di wax ne dem leen ngeen jëndi euh, ticket pour ñu faj leen nan leen dem leen ngeen jëndi espaladra euh, espaladra war dem leen ngeen jëndi alcool wala mercurochrome euh, wala alcool loolu moo metti ñëpp képp kuy gor loolu metti na ko nañ waxante dëgg rek loolu metti nañu li leen di dal gis ngeen nu mu sete propreté mais ñii du ñuy xar du ñuy béy mais Sénégal nañu waxante dëgg mais Sénégal ankuloo lay nuru Sénégal boo leen xoolee Sénégal lan la leen di jox mais fu ñuy yare ay xar ak ay béy la leen di jox amul leneen lu mu leen di jox fu ñuy yaree ak ay xar ay bëy wala fu mbaam xuux yi mbaam xuux yi fu ñu leen di fu ñu dajalee foofu la Sénégal loolu lay nuru loolu lay nuru loolu lay nuru léegi lan moo tax ñu leen di wax loolu mais fii wax leen ma benn mooy lu ma leen di wax rek mooy gis nga yàlla liggéey lay fay yàlla du fay ñaan Sénégal la gën ëpp sëriñ boo yëpp ay ay ñaankat lañ man man tey laa découvrir te ci samay fans yi sax ndakate dafa am ay ñaankat am na ko ma ci woo démb na ma moo laa jox ma sa vrai tour ma xoolal la quoi ma xoolal la ma ne ko ci waaye yéen doo leen xoolal Sénégal ma ne ko sama waa ma ne ko doo xoolal Sénégal mu ne ma lu tax ma ne ko ah damaa xam ne bu ngeen di xool ba léegi Sénégal mënul dem kanam xoolal ngeen nit yi ba ñu sonn léegi xoolal leen Sénégal nag lu tax Sénégal demut ñun fii amul Canada gi ngay gis ni amul sëriñ amul ku leen di xoolal te dañuy avancer di avancer rek yéen suñu dëkk bi ngeen fees dell ki xoolalkat te mënul fexe ba avancé xanaa nag man xoolal nañ ma ba sonn man xoolal nañ ma saa ma xoolalee même su ay waay wërs nit wërsëg nga da nga bëri alal <laughs> kii di kàccaka tegale gisuma dara lu ma liggéeyul aw ma ko ay milliards ngay ngeen di nga xam ay milliards <laughs> gisuma ko nee naa ko waaye sa waay man de lu ma dépensé rek dama koo liggéey gisuma lu lu yokk ci man donc <laughs> xamu ni def xoolalal ma Sénégal Sénégal laa booyoon nga xoolalal ma ko ba xam nii lañ nar a toroxee ñun nii nii lañ war a toroxee wala dinañ Sonko dina fi ñëw toog fi ñun ñii ñëpp ñu ñëw liggéey dëkk bi ba xam loolu dina fi musa am léegi nag loolu démb la ba léegi maa ngi koy xaar indilaguma ba léegi résultat bi parce que nee naa ko bu ma xooloo xoolalal Sénégal ba léegi maa ngi koy xaar daal sank bindat nakur ko relancé naa ko sa waa ji ci xolal ma senegal ba xam di dekk bi dina defaru wala ni la nar toroxe ba faw <laughs> ma ngoy xaar dal na ko indil ak serigne parce que fi dekk yaa ngi xolal development yi mais dekk yi amul kenn ku len di ñaanal man lolo ma yem xol len dekk fi wayen kan moy ñaan fi, ban serigne mo nek fi bu tuddu Samba korek Kipiti Kore wala Mari kep wala Ibra nokum nen al day wala ban serigne mo fi tuddu Samba kaka borom ndayu oval fan la ban sëriñ toog fii di ñaanalaate ak tufliwaate ba ñu génn ci kan la ban sëriñ moo leen ñaanal bañ am tali bu mel nii ban sëriñ moo leen ñaanal bañ yor oto yu yu mel nii ban sëriñ leen ba seen paysage bi verte ban sëriñ moo leen ñaanal ba dëkk bi set wecc ni xool leen xool leen ba fu di seen bët di am gisu leen mbalit ñii ban sëriñ leen ñaanal ah ñun de ñii xaw ma ko sëriñ bu leen xoolal waaye sëriñ bi aay na sëriñ bi aay na de hmm? da ngay woote Sénégal di wax sa di leen wax ñi gis Canada wala ñi gis Amérique yo naan wuy way sa way ñaanal leen ñu rek suñu dëkk bi mel ni nan la la mëna ñaanalé pour sa dëkk bi mel ni man dëkk bi kenn ñaanalu leen kenn ñaanalu leen kenn amul kenn kuy taxaw ne ma ñaanal Canada ko wax ñu ñuusal amul benn sëriñ ci kaw suuf bu ne mus na ñaanal Canada kenn musu ko def ay wa ay xéet gu taxaw la xeex reyante jaayante ba am seen liberté kessé ñoo fi nekk léegi nag man man waji ne ma waa mais voilà waaye Canada rafet na set na de mais ñaanal lañ ñu rek ñaanal lañ ñu gaañ Sénégal melni nan la koy ñaané dama yalla mayel Sénégal dëkk bi set yalla mayel Sénégal dëkk bi rafet yalla mayel Sénégal dëkk bi organisé yalla mayel Sénégal dëkk bi bax yalla mayel Sénégal <laughs> sa waay yéen tamit nañ waxante dëgg donte dañ ñi ray hmm? tout est organisé vous avez vu Il n'y a pas de secret. C'est le travail. Le travail. Il faut que les Sénégalais wañi wax jité dem liguey. Liguey fa manqué, liguey. Jeunes yi liguey ñu tamit. Jeunes yi liguey ñu. C'est pas dañoo bañ liguey dédit. Non. Lu dañoo bañ liguey. Xol leen de bi nu li <laughs> li moo man balaa maa dee am ay golo yu génn nag Sénégal naan toog leen ci dëkk bi naan dañuy woy dëkk bi âm na toog leen ci dëkk bi dëkk bi boo liggéeyee ma ma mà ñi ñooy doome xaj ñoom xam nañ ne dañuy duul ñoom như nañu dëkk bi kat new fa toog leen ci dëkk bu ñu fa toogee yaa leen di jox lu ñu lekk yaa leen di jox lu ñu naan yaa leen jox lu ñu dépense yaa leen jox lu ñu jox seen jabar yi ak seen doom yi yaa mun a kàcc nga toog ñu fay la benn ab cent mille deux cent mille ab nguur fay la ko wala njiir nga toog naan fii am na projet yaa ngi fii ñëw leen ngeen toog bu leen daw bu leen dem yaa mun a duul yaa mun a kàcc weccet giñ la jox moo tax nga ne ñu toog buñ toogee yaa leen di jox lu ñuy liggéey yow yaa leen di jox lu ñuy lekk lu ñuy naan yow laa leen di jox lu ñuy fa buñ feebaree bu lu ñuy fajoo lépp ndax parce que da ngaa encaissé gouvernement bu la jox Eiffage ak xaw ma lan seen seen affaire yooyu noonu balaa maa dee euh, euh, dem génne euh, seen genre kii yooyu noonu nu mu tuddi ay l'emploi des jeunes pour la libération jàppale les jeunes help les jeunes help the young generation jàppale di jur rek di dul di dul rek jàppale wu ñu kenn sàcc projet booy lañ fa nekkee booy bu dugal projet ñu sàcc say projet daw loola ba sa taat yi ñàq xat ñu bàyyi la fa ñukk na yàq bu naqari xooleen fu mu nekk nii léegi ehm. léegi maa wat ci yàlla benn nit bu nekk ko bu moomoon lii te amul benn gardien booy dinañ ko sàcc ba mu jeex parce que amuñu lu ñu lekk xool leen lii bu amoon Sénégal waajaa ngi ne borom borom a ngi ne ci biir lijjantiwu ko sax oui ça va ah xoolal fii dara naa fa def nekk nii bu doon Sénégal la sàcc nañ ko bu vidé nañ ko ba mu jeex booy amuñu lu ñu lekk ñu ngi booy amuñu lu lekk fii loo fi kenn ku fi sàcc mango wala banaana waaw duñ ko sàcc parce que gars yi gouvernement dañ leen di jox luñ ko mën a jëndee tu vois mais Sénégal gars yi joxuñu leen dara benn opportunité amuñu ko. ba pare am ñuy toog foofu di duul naan non bu leen daan toog leen fii toog leen <laughs> te ñuy fen de jaajëf waay kenn new kenn new fi kenn gardé wu kenn gardé ko waaye kenn du ko sàcc kenn gardé ko waaye kenn du ko sàcc doo leen gis ku ko sàcc de <laughs> doo leen gis ku ko sàcc parce que gars yi fii xiifuñu xiifuñu dañ leen di jox lépp Hein, tout est organisé tout est bien fait tout quartier da 1000 gis dara du dara suñu ñun problème lañ am amuñu problème peuple de billahi wër peuple gor peuple garmi barké alcorane suñu peuple ñoo mën peuple bi ñoo leen dakal liggéey dak leen xex ëpp leen jom ëpp mais dañoo amul benn possibilité ak opportunité amuñu ko tamit gars yi nañ ko nangu quoi nañ leen ko nangul defuñu dara billaay defuñu dara ay dirigeants yoo xam ne lañu am mais nag benn côté buñ buñ foofu nag buñ buñ bu réflexion bi gën a approfondi day daaruwaat ci ñoom nañ ko yemale foofu rek ne ne amuñu dara parce que tamit suñuy dirigeants yi ñun ñoo leen koy ñoo leen di fàlle foofu la suñu nekk nag suñu problème foofu la nekk c'est vrai ay nañ jom am nañ fulla am nañ fayda mais problème bi moom mooy lan saa yu ñuy fal ay dirigeants ay ñi dirigeants. fal ay dirigeant foofu la suñu problème Nous suñu problème fal ñun folli lañ mën isa Sénégal depuis Sénégal Nous Sénégal nous fal ku Nous folli lañ mën folli dañuy fal nit ku leen neex on toroxal leen bañ nous tot Nous na fi Nous ne fi jamais, non na fi na fi Nous ne fi jamais, na fi na fi Nous <laughs> ne ah ñu ne non indi na kuñ indi Nous na pas, na fi na fi ñu dañuy indi benn doomi xaj après indi xaj xaj ga ñëw matt leen bu raas matt leen ba ñuy bëgg a dee ñu toogaat encore ko fi jógee na fi jógee na fi jógee na fi jógee na fi jógee na fi jógee na fi jógee non na fi jógee daf ñu bëgg a rey li ci na fi na fi jógee keneen ñëw beneen xaj beneen doomi xaj ñëw taxaw ñu ne non nañ ko jël nañ baax na na kii sax man kuñ kuñ ñu jox baax na me na fi jógee nag kenn c'est loolu mooy suñu problème donc ñu nag ñun am nañ ñun problème mu fal lañ am ñun amuñu problème mu folli folli moom ñu dàq folli waate ñu buñ jógee ne dañuy folli gis nga tey jii Macky Sall ne xam moom xam na ni dañ ko folli donc gis nga nu ngeen ko follee Idrissa gis ngeen ngeen ko follee mais fal ngeen mënul nag problème mu fal lañ am ñun suñu plus grand problème mooy falaate fal ku baax fal ku jub ñun na fi jóge rek lañ mën mooy na fi jóge moo tax ku fi toog toroxal ñu ku fi toog toroxal toroxal ñu loolu daf sama gars itam dafa garaaw de war nañ xoolaat de war nañ xoolaat nañ yërëm suñu bopp wallaahi nañ yërëm suñu bopp moo tax gis nga fu mu nekk nii Macky Sall xam na ni jamono ji yàlla mi ñuy bëgg a may lenn lu ñu amuloon mooy lan mooy fal problème mu fal. parce que tey dem nañ ba gis ni Ousmane Sonko mii am na lum ñu jaay muy benn projet de société mooy lu ñuy gis Ousmane Sonko ñun ñii ñun ñii muy man muy gars yi nekk ci kaaw bi muy ay ñoom xuree si caam parce que tey ñoo xam ñun wër nañ àdduna. war nañu àdduna donc ko Sonko ñu jaay lu ñu xamut mais lim ñu jaay dafa baax moo tax ñu xam ko produit bi moo baax produit bi moo original moo tax ñu jàpp jafandu ci moo tax ñu taxaw ci ne non lii il faut mu sotti léegi nag Macky Sall moom ci ay pexem ne non loolu du fi sottee <laughs> sa waay nañu ko jaral nag nañu ko jaral ñu wan Macky Sall ni yow bul ñu fontoo munoo fee teg douze ans def li ngay def ba pare ne ñun duñ fi toog loolu moom mënul nekk c'est pas possible c'est pas possible donc na ñëpp demee le projet de développement bi nga xam ni moom la ñu instauré Sénégal moom mooy le projet PASTEF projet boobu noonu moo tax ñoom c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal ñu naan ay dañuy dissoudre parti ñun ci suñu jamono dissoudre parti pour ñoom bu dissoudre ay parti ci ay wax la parti du wax parti du ay feuille du lu ñuy bind parti état d'esprit la parti état d'esprit kenn mënu ko dissoudre kenn mënul dissoudre parti parce que state of mind la état d'esprit tolluwaay la doomu aadama yow muridiya wala tey ñu dem ci tarixa tarixa yi tarixa yi ñu ko créé ñu ko fonde kenn ci ñoom dundatul mais ba léegi tarixa yaa ngi continuer xam nga tax parce que philosophie tarixa tarixa dafa am philosophie am état d'esprit am ay fondement kenn mënul suul tarixa ak vent yu fi mus yep, yep, yëpp yëpp yëpp mus nañ suul mus nañ euh, jéem nañoo mais tarixa dafa exister te ba illaa yow mi dindee exister xamul tax parce que dañ fay tek lo hamni, ay base solide yo yoo ben ni benn ko dindi ben vent périodique mënu ko donc vous nga non un état d'esprit comme pasteur, non state of mind d'esprit là non courant de pensée Vous xam nga Sénégal musul courant de pensée panafricaniste léninisme le marxisme le socialisme le le euh, euh, le le libéralisme yooyu yëpp ay vent la ay ay courant de pensée wu tubaab bi la. déglu l'en bu baax nag li ma di wax courant de pensée tout bi la marxisme léninisme yi ngeen di le socialisme ak seen yooyu ay courant de pensée tout bi la. c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal mu am benn courant communisme ak yooyu ay courant de pensée tout bi la. c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal mu am un courant de pensée panafricaniste motax tax panafricain yëpp retrouvé wu ci sen bop motax nga gis bu laalé Ousmane Sonko ben Kémi Saba jóg ben Nathalie Yamb jóg ben Guy Marius Sagna jóg benn Mollah Morgun jóg parce que ñoo xamni ne dañoo yàgg a le panafricanisme ñom ñoo fi nek diko taxaw diko maintain parce que dañuy xamni le gars il a l'esprit panafricaniste dafa jóg pour mu rassembler l'Afrique Afrique dañoo jóg pour boler l'Afrique. lolu mom motax c'est un courant de pensée donc lolu kan moko meuna sul kan moko meuna dissoudre a xam nga ni ay waxi dof lañuy wax ay waxu golo lañuy wax lolu ça n'existe pas ñu dissoudre Pastef ñu sul ker sul ker du ko téré feeñ donc les gars gis ngeen il faut ñu def dara c'est-à-dire lu ñuy ñu ngi naan ay ñuy prôné comme le nationalisme non le souverainisme sax moo gën la nationalisme parce que léegi gars yi ñoom extrémistes yi boo boo waxee le nationalisme dañ naan euh, euh, euh, dañ naan kii dafa radicalisé wu dañ naan xam nga ñoom dañoo jël ay affaire comme ni ñuy wax naan islamiste la xam nga islamiste moom ñoom léegi jàppee wuñ ko comme islam islamiste moom mooy ay islamiste radical ay ñoo xam ne ay jullit lañu ay rey nit la ñuy def ñoom ñoom ñoom ñoo ko tuddee noonu quoi et l'islam ne rime au terrorisme mais léegi dañu jël lislaam islamiste la boo xoolee terroriste yi ñuy buñ jàpp na dañ naan islamiste la donc ñoo ñoo boo nee nag léegi nationalisme dañ naan ni dafa radicaliser wu donc léegi léegi da ngay utiliser le terme souverainiste souverainiste un souverainiste mooy ku bëgg a libéré wu lépp moomal ko boppam di ko defal boppam libre ci boppam donc ñun on est des mais problème bi moom mooy ñun suñu suñu réew dañoo tàmmul guerre tamit xam nga dafa am benn affaire bu ñuy wax mooy dañ naan waaw bon Sénégal xam nga dëkk jàmm la waaw guerre musu fi am dëkk dëkk bu am amul dëkk bu am jàmm te musul guerre wax leen ma ko wax leen ma benn dëkk ci monde bi bu am jàmm te geerut bu am jàmm ju wér pëng te geerut amul <laughs> jàmm munoo koo am te geeroo Jam kenn du ko négocier léegi nag balaa maa deeyaan Sénégal ben bop la kenn mënu ko xar ñaar dëkk jàmm la ñi fi tëdd musul am guerre loola moo tax Sénégal torox ñak guerre bobu mo toroxal Sénégal mais guerre moy indi break moy indi lepp arrêté ñu changer lepp loolu moom moy renaissance la renaissance la renaissance donc pour renaître da ngay dé nit mënul renaître té du dé da ngay renaître de tes cendres comme ben phénix pour dundaat xool len deuk yi nga xam tay ji jii rayenté ba am sen jamm joju noonu dañ ko xex au moment où jàng la guerre d'Algérie la guerre la guerre d'Algérie les pieds noirs ñom dañoo fight sen fight ba am say ay mouvement de de de révolte d'indignation yu tay war un mouvement national pour la libération C'est ce am na ci dëkk yi dëkk yëpp am na fa mouvement national pour la libération du peuple Si on va ci ay Cuba am nañ ko ak ñoom Che Guevara boo demee ci euh, boo demee euh, Afrique du Sud am nañ ko ak ñoom ANC ak yooyu boo demee ba Algérie am nañ ko mais Sénégal mës nga dégg ay mouvement national pour la libération du peuple non doo dégg parce que jóguñu pour nous booloo rente dañ ne dañuy libérer peuple une bonne fois pour loolu am Algérie amna yene yeneen dëkk yu ma leen di wax yooyu yëpp loolu moom mo indi ñom hymne national Algérie bi loolu moko indi xana xamoo dëkk yëpp yu amone ay mouvement national pour une libération du peuple ñooñu ñëpp dañoo libéré wu seen langue nationale la utiliser sauf Sénégal parce que Sénégal musul libéré wu depuis bu Sénégal sancho ba légui musul libérer wu seetlu leen hmm <laughs> musul libéré wu Sénégal musul libéré wu Algérie muy France ak feneen ak feneen Tunis yéeg yëpp dañu am ay mouvement national pour la libération du peuple lañ ko xeex reyante ba am ci jàmm mais ñun amuñu ko léegi loolu moo waral tey jii hymne national d'Algérie ki nga xam ne dañ ko jàppoon kooku ci mouvement national pour la libération de l'Algérie la bokkoon ñu jàpp ko def ko nu ñu def Ousmane Sonko nii tëj ko dafa grève on grève de la fin toog moom moo bind hymne national Algérie ci deretam deret deret laa leen wax de mu jam boppam deret bi di toq mu mu jël deret bi di ci bind hymne national est xam nga ni hymne national Algérie deret lañ ko bindee moment boobu noonu <laughs> Senghor mi ngi toog fële au bord de la mer fële ca Joal naan la femme noire la femme africaine paañ jaljali bin bin tendance rajaxe waa la femme africaine fondé jaay fondé amul pertement boo ci amul euh, euh, kii am ci say wang boobu moom mi ngi koy bind moom moo algérien ñoom mi ngi toog ci biir kaso bi grève de la faim di toqal deretam di bind moom boobu Senghor moom mi ngi toog fenaan pincez <laughs> tout vos corps aca frappez le balafon ana fecckat bi yuuxul am nga jaljal yi bin bin ana kii bi fo jaay fondé amul pertement <laughs> moom algérien yi ñu ngi toqal seen deret ci biir kaso bi di di bind seen hymne ci seen langue ñoom ci seen langue waa ji moom ma nga toog fenn péché tout fokora farafela fa la fao de lion rouge a rougi le donteur de la brousse do bon c'était lancé moo tax buñ koy booy buñ koy woo sax dañuy foo <laughs> parce que parce que kenn amul papay kenn buñ tuural deretam di ko ci bind loolu moo tax algérien bu ñuy bu ñu koy woy dañuy jooy téye seen dënn yi nii di yuuxu di jooy di làkk di di wax seen langue seen langue nationale di jooy nii parce que xam ni nga xam ne lii deret deret lañ ko bindee prisonnier deret prisonnier boobu moment boobu ñoom ñi ngi libéré wu boobu Senghor ma nga toog au bord de la mer njaax yor benn gauloise am di muqi ak ñu eh, eh, kii bi jabar ji tubaab bi naan ko defaral ma café Eh, s'il te plaît, un bon café. Hein. <laughs> La madame, monsieur, est-ce côté pour me faire un bon café hein. <laughs> Mais c'est du encore oh. <laughs> a frappé le balafon. Madame, man, je suis problème buntu quoi romb gars may sama yor rek gendarme bi oh, oh oh oh ah, a Je ma taxaw xaar ci buntu ah. ma taxaw xaar la ba pare ma ma ma avancé mais nañ ma fee de maa ngi romb fale de ndekete ñoom ña ngay yëkkati drapeau quoi ak di pincer tout safuma dara pincer tout waaw kor mën nii man di tëñëx tëñëxi di romb waaye o oh, oh, oh, sama waaje sama waaje o ma ne lan la mais yow xanaa ñu ma ne waaye sa waay seen drapeau bii nag xamul lu muy xeeñ kenn xamul li ngay surtout fokaraat naa ci taxaw rappel balafon man yor ma balafon aw mënu may peese yoruma kooraa ah <laughs> waaye ji doo ma bàyyi ma dem sama yoon ma taxaw déglu leen ñu pare ma dem sama yoon man safuma xee ñu ma safuma man ne ñuy golo bu ñu paree ñu may ma jàmm man man naa tardé sama pincé tout fu ma eh, yow yow di nga toog pincé tout di la tardel sa waay nañu waxante dëgg rek lang jàmbur bi ñu ne pincé tout vocora lo sa waay nit yi am nañ bu am nañ droit boo fa toogee naan pince tout vokara ñu dem seen yoon parce que yoruñu kooraa amuñu lu ñuy pincé amuñu balafon yu ñu tëgg te mënuñoo fecc yoruñu tamit ay lu rabal ay sëru rabal yu ñu mën a fecc ak ay jaljali waaw mille fleurs këyitu kër yoruñu ko yu ñuy fecc ñoom tam ngir yàlla ñuy góor jigéen nag ñu fontoo donc loolu lépp dañ koy xeex gis nga loolu lépp dafa bokk nag ci suñu révolution bi de barke rasulillahi bu ñu incha allah bu ñu yàlla defalee ndam même hymne national bi lañ koy changé billaay wallaay langue officielle bi wolof lay doon ci école yi projet bi du projet caaxaan de langue officielle comme ay ñoom Rwanda yi ñu def dañoo sànni français bi fële ca xaj gis nga Mali mi moom lay waajal bu ñuy ñëwee incha allah langue officielle bi wolof lañ ko def bind bind hymne national bi en wolof bu am sens am solo wax ci suñuy résistant yi wax ci résistant pacifique yi wax ci résistant armée yi wax leen ci ay jàmbaar dëgg lañ fàq tëdd ñu tudd leen ci yéen a ngi dégg voilà def ko noo xam ne day retracer suñu parcours historique national suñu parcours historique national euh, hymne national boo xam ne da koy retracer hymne national luy retrasé benn parcours historique wu dëkk boobu noonu fu ñu jaar deret ya fa tuuru nuñ ko xaree yooyu la ñuy def yéen a may dégg donc loolu yëpp ci projet bi la bokk kon nag Macky Sall dafa tuuti ci bugg ñoo wax ni loolu du fi am Macky Sall dafa tuuti ci bugg ñoo gëmloo ni loolu du sotti loolu moom da cee tuuti loolu da cee tuuti léegi nag il faut rendre à César ce qui appartient à César gis nga peuple bi bu ko kenn waxal lu ñaaw peuple bu ko kenn saaga moo tax man bugguma di wax ay peuple bi xeexu peuple bi xeex nañ day sa waay ji parce que alxuraan peuple bi xeex nañ ba fu xeex yam peuple bi ay jàmbaaru fàq tëdd lañ c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal ñu raille plus de 65 personnes ay rey yu ñaaw la leen Macky Sall reyee rey ñaaw sénégalais dañ ko résister depuis 2021. mille vingt et un ñu koy résister peuple bu intégrer intégrer le peuple sénégalais il faut remercier le peuple sénégalais il faut applaudir le peuple le peuple sénégalais il faut rendre la monnaie au peuple sénégalais qui ont tant résisté à l'oppression aux tirs. ay ont gis ngeen rey yu ñaaw yi leen Macky Sall yéen gis ngeen façon voyez. bu ne ay ñuñ dóor ay fait. ci bopp gis ngeen ko wala gisu leen ko ñu jam ay ci ay xol gis ngeen ko war gisu ñuñ jam ci ay biir butit yi di génn gis ngeen ko wala gisu leen ko ñu ñu jam fii ba yar yàpp bi yëpp di lang gis ngeen ko wala gisu leen ko ay rey yu ñaaw mais teewul peuple bi dafa résister c' est un peuple de gor un peuple de garmi te bés bu ñuy defaat hymne national bi incha allah dinañ leen ci bind à partir de 2021 ba 2023 amul peuple bu leen gën a résistant gisuma ko Afrique nuñ leen def Mali ñoom changé nañ seen daane nañ def nañ seen régime changé nañ te rey ñu si 65 personnes bu leen fàtte loolu de. xam nga gars yi sama dañuy joxe des fois l' exemple du Mali oui le Mali a résisté non mais Mali rey ñu 65. et Sénégal ils ont tué plus de 65 Sénégal ay jeunes xale yu ndaw tiré nañ leen froidement ay bal ci bop, ay bal ci xol ay bal ci dënn ay bal ay ngay gis yàpp ak deret nii ñu ngi koy doog a gis ñuy lang ay bopp ñuy daggatoo ay nit yu ñu sul ñuy teddeewuñu Macky Sall def nako ay nit yi ñu sanni ci géej ñuy génn ci géej gi ak ay bal ci seen yaram yi loolu yëpp Macky Sall def nako donc sa way amul peuple bu gëna résistant le peuple sénégalais il faut vraiment rendre hommage au peuple sénégalais qui a résisté aux balles qui a résisté à l'oppression qui a résisté aux tueries bu nga xam Macky Sall def nañ leen et il y a eu plus de 1800 prisonniers politiques loolu Macky Mali dunduñu ko Algérie dunduñu ko ci révolution printemps arabe Tunisie du ko donc le peuple sénégalais ay jàmbaar lañ ay gor lañ il faut rendre à ça c'est pas des des traites c'est pas des traites c'est des c'est des ay jàmbaar dëgg fàq tëdd lañ man rendre hommage Je vais rendre hommage Nous ngi continuer ba résister donc merci au peuple sénégalais merci au peuple sénégalais d'avoir résisté et que diaroul le combat continue Xamé leen ko combat le combat continue des na de Macky Sall fi dara dara dara dara des na lu bare bare bare bare bare bare des na lu bare bare bare te ndam li ñun ñoo koy mujjee gàddu xam naa ne fu mu ne boo ko waxee gars yi da leen di bett parce que mbiru yàlla moo yéeme mbiru yàlla moo yéeme am na nag ay nit yoo xam ne ñoom vraiment <laughs> des fois ñu woo ma quoi mooy <laughs> mais turu kii laa soxla quoi Antoine ñàkk jom kii turu yaayam ak ak ak bàjjanam ak wuju peccor koom man yooyu moom du ma ko war a tontu quoi turu ay turu sa gis nga nag am na ñoo xam ne ñoom dañuy wàcc dañuy wàcc xeex bi di dem mais turu yaay Antoine Diome lu ñu koy doyee lu ñuy jooyee turu yaay Antoine Diome pour lan ay mystique ko ay mystique sama gars yi nañ leen <laughs> sama gars bu ñuy xeex ba léegi deux mille vingt et dañ koo mystique kenn mystique ko ko dañoo génn xeex am ndam deux mille vingt deux dañoo génn xeex am ndam deux mille vingt trois dañoo génn xeex ndam ñii di woote naan ay jox ma numéro ay turu turu yaay yaayu Antoine ñàkk jom wala turu yaayu Ismaïla Madior Fall ngir yàlla man dinaa yeewu di wëri turu yaayu Ismaïla Madior Fall lu ci sama yoon man musuma la seule la lutte libère le maraboutage ne na pas xam leen loolu le maraboutage ne libère pas la lutte libère man balaa maa dee ay nit jël ma ci whatsapp bi voilà dama toox soxla woon liste nag turu yaayu Ismaïla Madior Fall turu turu euh, euh, yaayu Antoine Ñàkk Jom turu yaayu Macky Sall turu yaayu euh, le général Moussa Fall turu yaayu man leen sawe ñi ngeen di laaj seen tur yëpp seen yaay yi dee nañ ñoom ñëpp seen yaay yi dee nañ man daal xaw loon doyee seen yaay ñoom ñëpp seen yaay yi dee na Ismaïla yaayam dee na kii Antoine yaayam dee na na Basirou Basirou Gueye yaayam dee na eh, eh, eh, ki nga xam ne moom mooy le commandant Meng yaayam dee na ñi ngeen di laaj seen yaay ñoom ñëpp dee na seul la lutte libère bàyyi leen jàmbur yi bàyyi leen yaayu jàmbur yi da ngeen lijjanti seen ñu nañ jox xeex. man affaire boobu nag daf ma xaw a marqué moo tax ma ñëw wax leen ko ñi nga xam ne ñi ngi may woo di ma laaj turu yaay seen ne ñu yi dee yooyu nga xam ne dee nañ dund nañ fa dee seen doom yi nekk fii di lëmbe ñu waru ñu seen maam ñu nekk nit. ñu ne fi di wër seen turu yaay yi pour lan pour lan ah. <laughs> ay waay man Sénégal affaire bi jaaxal na ñu loolu ñun lan moo tax mënuñu xeex te bàyyi lu ñu lu yëngu rek ñu foog ne maraboutage la xanaa xamoo ni waxoon naa leen ko ne laa leen amul benn kenn ku ñu fi libéré ci ay ay affaire u sëriñ man yooyu musuma gëm. ci ay affaire sëriñtu ni mosuma gëm buñ fi rayee ki nga xam ni mooy euh, François Mancabou mbokkam yi génn fii génn ay béjjén génn ay kii di yuuxu ah, bi ci laa ñëw ñu ne gaay gi gaay dof yi génn nag na lay lay laa la tay Macky dee de waay waay waay gaay génn lañ de xool leen béjjën yi xool leen ñu monté seen bopp yi béjjën oh ca ca wàllu ngo ca pa ñu sa son ko ñëm bo Macky bi ca caale mbo e, ya ngang do e, ngeen ki ñëm pa ca ke lan e, ca ca ka mu ne ban dëkk moo libéré wu ci ay añankañankaa bi jang mbok mbokk Stéphane yi man u jong kajankaa e eh, leg nañ joganko e eh, nga sam poso e eh, jaxan kii lii waa ji dee na Macky la ngi eggal li muy def doo leen yooyu waa ñëw rey assassin bi rey seen i kii ngeen génn ak seen i béjjën ak ak seen i seen i pot de vache ak pot de biif la ngeen génn seen way yooyu quest que ça a changé procureur bi ne daa mbëkk giri bi boobu ba léegi mi ngi dox ay soxlaam waa ji moom dee na fàtte nañ ko bàyyi leen loolu ngir yàlla amul benn xeex boo xam ne mystique moo koy gañ amul <laughs> loolu moom bés boo ko yeewoo ngeen xool dëkk yi lu leen defar du mystique kon amul benn dëkk boo xam ne libéré wu na ci mystique wax leen ma benn dëkk bu libéré wu ci mystique même le prophète sallallahu alayhi wa sallam muhammad billahi pour moo gañee pour mu gañee yëfër ca Makka ak ca Médine daf koo xeex le prophète sallallahu alayhi wa sallam xanaa bu doon mystique boobu kay prophète bi ku koy dàq mystique day ñëw mystique 313 dañoo xeex a xeex ñuy dagg ñi ñuy dagg seen bopp yi ñii ñu xotti seen biir yi ñii ñu génne seen xol yi ay Hamza yëy xol bi ñii ñu def leen ay affaire yu garaaw Mouhamed xeex ba naaw ba waay jaayante ko ay ñuy rey ay nitam mais pourtant Mouhamed ku ko gën a jege yàlla te yàlla daf na ko demal xeexi mu jël ay EPM jël ay gileem di xare kon amul benn dëkk bu libéré sama gars yi benn dëkk ci àdduna bu libéré wu ci ay affaire jël tur yi jàmbur rek tur yaay jàmbur comme yàlla may ko Mouhamed du yéen la koy may gis ngeen François bu nu mu mujjee gis ngeen di Badji moom tam amoon na ci de Didier Badji Macky Sall jël ko see ak moom yi réeral ko ray ko sotti ko acide gis ngeen ki nga xam ne moom mooy Fulbert Sambou mbokk yee génn ci ñoom ñëpp génn ñu ngeen dem ñu ne Casamance lay xewee ñu ñëwati ñoom tamit ak seen waya bacanjo yang longoncho elangin kunung kajangka kajang kajengke ojong kunungko kajang kujungka ngajang kujungko Stefan DJ Baji ojong kujungka ngajang kajengka dus DJ Baji ba legi jabar ja mu jégéenu toog buntu ambassade ba nan lañ jox leen ma sama jëkkër kon xujung xujung xaa gijing gijing ngaa bijing bijing bee bu doon génnewaate di ca baajee ngi dox soxlaam waaye leen caaxaan yi Fulbert moom lañ ko def woo aji rey ko daggate ko sànni digg géej ñuy for ay benn yax di for ay benn tànk ay benn bët ñoom ñu génnati ñoom tam way jàng woo il ak moom ca bañ wéewu ay jagawuñ ca ngir yàlla doo leen toog ñi waxati ñu jàpp ñu jàppati kii nga xam ni euh, moom mooy Bassirou Diomaye Faye sama mbokk séeréer tam génn fees dell ci tali bi aya rok sen rok ngong rok go rok go du jungo rokala ri jokkalo mën a waay ay ñu waaye ñun doyal nañ ci si o oh, gars yi nag <laughs> bu bàyyiwul Bassirou Diomaye Faye séeréer yi dugg nañ nag lay la lala séeréer yi rok seen rok rok ta yoo teg ngeen dee yéen léegi ci rok ngeen di dugg rok rok moo da leen di lekk rok da leen di warax rok da leen di ba léegi Diomaye mi ngi ci kaso ba ñooñu way nañ ba wayee jeex ba ñu am na sax ñu dee ci diggante ba ña doon woy noonu am na ñoo xam ne dee nañ ci diggante bi bañ suul leen ba fàtte ba léegi jomaay fayee nga ci biir ci loolu looloo ko génne génne wu ko de woy nañ yuuxu nañ kii rok ak koko koko gis nga amul <laughs> seule la lutte libère loolu wax ji leer nañ la seule la lutte libère les chansons ne libèrent pas les ñaan ne libèrent pas les ñaan sax moo gëm les ñaan maanaam ñaan waxuma ñaan ñaan nii na ay yàlla na non les ñaan nga dem ñaan comme jabaru sonko bi lumu def ñaan lolu sax mën na libéré waté mais ay yi ngeen di def yoy ñuy kay di def ni japp ni di Macky Sall di len réé ka dagaté ngeen nek fi bu fe woy ak fàttali ko ay affaire yoy non lolu ça marchera pas gars ça marchera pas donc il faut se battre il faut se battre il faut se libérer moo tax man ku may woo naan ma ay waay Mollah <laughs> dañu jox turu kii ah waaye Mara dama jox turu uh, jabaru yaayu kii nag <laughs> man man dañoo bëri caaxaan man yooyu nekku ma ci yooyu man dama caa nekkul parce que man xam naa ni loolu <laughs> sa waay man waxuma amul de waaye sincèrement bëri na caaxaan caaxaan bari na ci trop trop trop trop trop caaxaan bëri na ci caaxaan bari na ci ba pare luy contradictoire mooy gars yi xam nga gars yi dañ naan ñaan ñaan day ñaan day ñaan waa ji day ñaan day ñaan après ñu ne waaj dafa aay day ñaan mais waaj ji dafa aay waa yéen xool leen loolu contradiction boobu ñu ne waa ji day ñaan mais dafa aay <laughs> day ñaan mais dafa aay loolu fu mu am kuy ñaan sa tey ñu may la suba la may mun ngaa ñaan sans ñaan yàlla rejeté lépp moom nga ñaan di ah cent un bi un bi mu may la nga ñaanaat soixante quinze mu may la de rejeté affaire da ngay ñaan di ñu ne kii de day ñaan ñaan day ay ñaan la ay ñaan ñaan xam nga ñaan égal keemande ñaan mooy ñaan saraxu saraxu da ñaan kan lay ñaan yàlla lay ñaan ñu ne waa ji dafa aay nu mu aaye mais kuy ñaan nan la aaye day ñaan rek nu muy ñaanee ngay ñaanee nu jaajo faay jaar ni muy ñaanee ngay ñaan waaw ñu ngi jaar waaw sant yàlla bége jaajëf jaajëf jaajëf jaajëfaay waaw mun a kàcc nan laa fi nekkee yow ma toppee yaa mun a kàcc nan la nan laa fi nekkee noo ma toppee loolu xeex nga naan yaa fi nekk yow la ñuy topp li laay waxati dañ lay solal caaya ba ngay kii ñu xëyee la nga yeewoo ngemb Sénégal ñoo lay takkal caaya ngay cëpp cëppi firi firi nga yeewu ak taatu neen guddi gi ñu solal la caay bu rafet sax nga tëdd ñi la tëddal bàyyi ba ngay nelaw ñu ñu summi la ba nga set nga yeewoo ak sullu guy lang naan waa mais nu mu demee ni man man rek <laughs> fekk xolal ci guddi gi lay la solal caay ci balaa ngaa yeewu summil nañ la ko beneen affaire la beneen beneen beneen problème la non ga kii bi am na ku ma naan am na ku naan def leen kër yi non benn sénégalais baadoola la rek de mooy woote de mooy coupé muy woote muy coupé muy woote muy coupé <laughs> mais duñ bàyyi <laughs> Sénégal man affaire boobu jaaxal na ma tubaab moo lay woo benn yoon jëloo mu waa deux jëloo la woowaat parce que danaan dafa occupé sénégalais bi moo lay woo jëloo mu woo nga coupé mu ngay woo muy coupé ngay muy woote ngay coupé muy muy woote ngay coupé muy <laughs> ci no sénégalais benn espèce espèce espèce bu raar la espèce bu raar mooy sénégalais mais nit bu ngay woo mu lay coupé mooy sawaay gis nga ko mu lay coupé moom mooy dafa jàpp nga insisté xoolal waa ji na ma fu nekk nii huit fois maa ngi coupé boobu ba léegi boo leen gisee muy tàgg na waa ji benn benn nit bi benn nit bi moo may woo may coupé muy woo may coupé muy woo may coupé loolu sénégalais rek ko mën billaahi boo pare woo la quatre heures du matin nga décoration <laughs> yaa da ngay nalaw ah sa waay yow xam nga ne day nalaw sa waay ba mu ba mu la ba nga woote ba sonn mu découragé nga dégg euh, alo nga xam ne day nalaw léegi da ngay nalaw bi lan la da ngay bi lan la quoi hmm? te yow xam nga ni day nalaw yow xam nga ni 3 heures bi nga matin bi nga woote day nalaw yow xam nga ni 4 heures bi day nalaw 4 heures du matin léegi yow nga woo mu jël ne allo nga <laughs> na ko da ngay nalaw bàyyi caaxaan yi am na loo xam ne booy sa président du ko jàngalaate humanisme nitee nitee loolu kenn amul kenn du ko jàngalaate loolu nit yi ñoo war a nitee woo naa la jotuma la benn yoon pare naa bu ma toogaan mën naa toog benn deux heures de temps woowaat la wala trois heures wala ma envoyé la message wala ma envoyé la message il faut ñu def ko ci suñu bopp tamit ñun tam dañu am benn problème boo xam ne ñun willaay <laughs> te gis nga ku la dàq insister du la wax tus du la wax dara wóor na yàlla non yooyu moom ay question yoo ay ay wax la yoo xam dañuy bëgg di wax rek quoi ay fekk la ngay nalaw ñu woola yaa ngi nalaw wala yaa ngi nalaw wala yaa ngi nalaw fekk la ngay nalaw ñu la ah, sama waa ji nag moom nalaw mais yow gis nga ni mi ngi nalaw yow xam nga ni mi ngi nalaw kon yaa nalaw bi pour lan la pour woon que ni moo tax sénégalais bi gën ko teg beneen morom sa non nalaw ma de <laughs> affaire jaay perek la dañuy ñëw fekk kuy nelaw ñu ne ko mais sa yaa ngi nelaw kooku gën ko dof gën ko réew ne ko non nelaw ma moo tax sénégalais boo fekk mu tëdd nga ne yaa ngi nelaw mu ne nelaw ma du la a wax waa maa ngi nelaw mukk du la ko mës a wax parce que question dof la réponse dof yaa ngi nelaw mus ngeen gis kenn musu leen fekk ngeen ne nelaw mu ne sa waa yaa ngi nelaw nga ne ko waa maa ngi nelaw da nga naan noonu nelaw ma ah mais c'est une parce que bu dofee ba taxaw di la laaj ba xam yaa ngi nalaw te gis la ngay nalaw ngoo nga ko gën a tengee na ko waa non nalaw ma de kenn xamul lan la kenn xamul lan ba pare woote gi yëpp nag du la wax lu am fayda billaahi loo xam ne mun na xaar duñ la wax dara lu am fayda dara lu am fayda duñ la ko wax mën nañ la fekk lalu hôpital nga nekk entre la vie et la mort <laughs> ça va na nga <laughs> yaa ngi yaa ngi tane yaa ngi nekk entre la vie et la mort yaa ngi tane yow tam nga gën ko dof nag <laughs> waaw maa ngi tane mu soo gis ku tëdd ci lalu hôpital nga ko yaa ngi tane mu ne la noo tane wu ma ah, léegi la moo tax sénégalais bi nekk ci dund ak dee nit ki ne la yaa ngi tane tane woo ne woo ko tane wu ma dañ lay fekk ci lalu hôpital ñu jam la partout des perfusions nga nekk ci diggante dund ak dee sa yaay ñëw wala sa kenn ca benn mbokk <laughs> kii nga xam bay ça va xam yaa ngi tane nga maa ngi tane sax nga wax ko ak effort hmm? maa ngi tane kay maa ngi tane même nuy waxee xam nga ne tanewut même bu lay wax ne maa ngi tane sax da koy waxee ak ak avec de la peine <laughs> maa ngi nga ne ko yaa ngi tane kon ni Sénégal daal ku dem ku fekk nit ci hôpital daal yaa ngi tànn rek nga koy laaj loolu rek nga ko mën a laaj loolu rek nga ko mën a laaj quoi yow yow il faut sénégalais bu la fekk hôpital yaa ngi tànn la lay laaj yaa ngi yaa ngi tànn te sénégalais bi tamit rus naa wax ne noo tànnewu ma boo ko waxoon tey ñii ñu mbamb la boo ko waxoon tey ñi mbamb la <laughs> y a problème y problème <laughs> balaa maa dee nag ngay critiquer benn affaire ne gars yi waaye xanaa yow doo <laughs> sénégalais daal moom mooy nit bu baaxul bi daal sénégalais daal moom mooy loo ko teg mu war a tegoo loo ko teg mu war a tegoo dama am sama benn copain bu ma ñëw ci àcc nii quoi di ma leb maani ma ne ko nañ dem ci banque ba ma récupérer xaalis quoi déjà ñi dem ci guichet automatique bi doxut fii bu guichet automatique doxut machine bi moo lay wax ni doxut déjà wala ñu tafal la benn dara bu këyit bu lay won ni doxut mu kurti kurti machine bi doxut ma dem ci biir fekk fa gel bi ma ñëw waa jaajëf ça va neen def ça va dama bëgg a récupérer benn xaalis quoi ah ñaata la wala non deux cent mil <laughs> et connexion amut ma ne connexion lan noonu connexion yi amut ma ne ko ban connexion c'est comprendre connexion internet nga amul bu dee amoo connexion internet ma partagé la sëñ bi connexion amul de ma ne ko non dama ne bu dee amoo connexion ma partagé la partagé nga fi nga am connexion <laughs> wala du wala du loolu non connexion amut ma ne ci man ne ma doon fokk muy dëkk bi mooy dëkku doome xaj yow xanaa doo sénégalais yow xanaa doo sénégalais yow yaay doome xaj ma wóolu la dénk la sama xaalis ngay banque ma soxla ko urgence nga ne ma internet amul ma dem jéggi sa ba mënu ko récupérer doxut nga war ma mastaw nga nga may xas nga war maa mastaw ma nekk ci urgence bu ma la dénkee kay joxuma ko nit nekk ci urgence mooy moo ko soxlaa dama ko war jox joxoo ko ba boole ci nag <laughs> yow xanaa da sëñ bi yow xanaa daal moom mooy doomeer am daal moom mooy lu metti dañ ko ko war a teg naqar dañ ko war a teg bu soxlaa du du ci jot sénégalais daal moom mooy maanaam malheur mooy ku malheureux daal ah mais c'est incroyable c'est incroyable non réew moom non dinañ ko defar nag gars yi ne bu ne désespérez pas billahi dañ koy defar non yen ngeen foog ni bakkan ni ñu tegee nii suñu bakkan yi nii di ko jaayante boobu ba léegi di résister ngeen foog ni ñun dañoo jóg barke alxuraan Macky Sall dinañ defar réew mi billahi dinañ defar réew mi wallahi dinañ defar réew wataalaahi ba bañu ci bàyyi suñu bakkan ndax ay 65 ñoo ci dee am ñu ci gaañu Macky Sall ñun réew mi dañ koy defar bu dee da ngay jaar suñu kaw mbaa ñu jaar sa kaw mais dañ koy defar réew mi dañ koy defar par la force réew mi dina mel nii mbaa xoolal ñëpp dee réew mi dina mel nii mbaa ñëpp faatu réew mi dina mel nii xoolal lii réew mi dina am lii lii yii réew mi dina am lii ñuy gis nii réew mi lii lépp dina ko am lii ngi nu mel nii réew mi dina ko am par la force wallahi maki booy réew mi dina am lii réew mi da koy am réew mi day am parking yu mel nii day am espace vert réew mi da koy am ñoo la waatal ci yàlla réew mi da koy am di ko jëriñoo di nga ko jëriñoo di jëfandikoo mais réew mi dañ koy defar par aw par bee loolu moom boo yaboo nga takk ko téere caaxaanuñ de nekkuñu ci caaxaan nekkuñu ci kaf di foo di dañ koy dafar réew mi dañ koy defar réew mi dañ koy defar ba mu ne cocc jàpp suñu frères yi sàcc leen nokk ci kaso yi di leen liggéeyloo réew mi dañ koy defar réew mi amul ay jël rak jël mak ay kuñ fi fekk nga japp ab jigen teddé ko ba jox ko place dinañ la japp nokku la ci kaso bi teddé sa yaay teddé say sœur teddé say dom ba bu ëllëgé boo joxati place bala nga ko jox place ba du koy mérito dégg buñ ko défé bés bo jëlé ab jigen bu mérito wala place nga teddé ko ba jox ko place ba promotion canapé ñu yëg ko def suñu enquête japp ne yow da nga tëddee jigen ci dinañ la top yow tëddee sa jabar duñ tëddee sa yaa sa sa jabar tëddee say doomi jigen jigéen furi ñu tejj sa mam dakk sa mam bo ëllëgé kèn dootul jëlati doomu jambur diko ko diko jox suñu place wala suñu xaalis mu kay encaissé dinañ ko doxal ci nu mu waré ni mu waré dinañ ko doxal ci nu mu waré la wax réew mi dina défaru par A ou par B réew mi depuis 1960 ñu ne day continuer système boobu loolu ku leen ko wax da leen ne ndax loolu du dëgg waaw loolu du dëgg de dinañ defar réew mi dinañ ko defar ba mu ne cocc billaahi di leen jox tali yi ngeen am nii tali yi fi nekk nii di ngeen am yu mel nii lii di ngeen am lu mel nii di ngeen ko am de bu ma leen ko waxee rek gëm leen ko digeen ngeen ko am de xanaa ñu dee. te bu ñu dee am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ñu gën a yore suñu idéologie yi nii idéologie de développement nii xoolal dañu koy defar réew mi dañ koy defar réew mi dinañ ko defar ba mu ne coccu bu soobee yàlla kon bu leen tiit bu leen ragal bu leen tiit bu leen ragal voilà kon gars yi maa leen di béggee bu a ah. am na ko ma naan waa même Mollah am na xaw lan am na ñu la fi bëgg xaw ma ñu la fi doxaan ak yooyu mais yéen man wax naa leen lu ma leen di wax nee naa leen moolaa nii dama génn di doxantu de gars yi dama génn di doxantu nu ngeen ma gis nii saag bi nag saag bi dafa xam rek dafa sama frère la ko saag sama gaayen la saag bi laa gaayen saag bi c'est le plus moom moo nekk koo xam ni xam nga nit yi ñii ñii dañuy génn ànd ak ay xaj ñii ànd ak ay muus ñii ànd ak ay golo ku nekk lu fi mooy sa sa sa sa partenaire man saag bi sama partenaire de guerre la saag bi dafa ànd ak man fépp saag buma né nee Corée du Sud da koy raconter sac bi dafa and ak man fépp dafa and ak man Corée and ak man Japon and ak man Singapour and ak man France and ak man Sénégal and ak man Hollande fu ne dafa and ak man ba kuma xamé fi ci dëkk yi xamé nga ma ak bi donc sac bi gor la garmi la motax may and ak mom même bu ma ci deful dara sax damay and ak mom dama sa yu may genn na am ko kay ñi yor seen xaj ma yor sama sac lonk nako ay ci ñu dem ako gore dama koy bor rek du joy du jooytu du lu te lu ko seuf mu jël lu mu ko seuf dama koy duy ba mu fess mu ne ma ay ca yoraatoo lu dess ma ko non non baxna baxna donc mang koy sante diko ko sama sac bi sante nako ko nako mm, wa ngeen sante la mako moy sama compagne sama compagne bu wesso lol nak wax naa leen ab wax non moo laa la tak jabar <laughs> non moo laa mënugul jabar sa way yéen na ngeen résistant yëpp seen seen jabar yee leen rey seen jabar yi ñoo leen reylu résistant yëpp seen jabar yee leen reylu Macky Sall sax jabarama ko reylu mi ngi noonu sàcc ay milliards Marème fay xam ne ni tey jii bu Macky Sall kii day daanu moom ak ñooñu léegi man ma nekk ci dëgg xare ngeen ne ma ma dem takk ji jabar xanaa man damaa bëgg dee xanaa damay xaru ma takk jabar Macky Sall jaar ci suuf jox ko ab ab mu ne ko jox def def ko ci lekk bi mu faatu <laughs> jël ko jox ko jox ko ben 2 milliards mu dem def ay ay yërëm jënd ay yërëm jënd dalam yi rafet defar aduna ba mu rafet posone ma bu ko saf dara saafara ba lay jël rek soti nga nan dur ba sa mbàq li fe si bu <laughs> chéri chéri ci bi neex na def fekk da ko posone man fu nek ni amul aw gel sax awmako ko wóoluma gel sax sama sak bi dal man ak sama bop ak sama sak point voilà du ken wutuma gel wutuma jabar <laughs> wuruma doom pour l' instant pour l' instant ba xeex bi pare xeex bi pare bañ am sañu ndam deux 2024 ñibbi si si jàmm bu ak nag takk takk ci sénégalais yi kenn koo bëgganteel doole bu la reyee sax du yàq dara parce que idée bi day dem bu la reyee day fekk Sonko moo fay nekk ak ay géem continuer la garaawut <laughs> une partie se compose de morts qui la fondent et de vivants qui la continuent mais jamono ji sama xeex bii dinaa fi jël kenn nga xam gel yi nga xam ne ak ñoo gaaw ci trahir dañu cee bari de ak ñoo gaaw ci trahir moo tax gis nga sëy yi yàggatut dañ koy takk lundi fase ko mardi <laughs> dañ koy takk lundi feet ko mardi fase ko mercredi nga xam ni nañoo bugg àdduna politique safu leen jigéen yu bëri politique safu leen lijjanti wuñ ko sax buñu yawo yeewoo xol ngenté wala xawaare wala super ndaje wala yëre bu mujjuk wala dal bu mujjuk wala wala wala pédicure manicure na ci tak ni di ci ray sama bop sa sa saaxe sama bop duma ma saraxe sama fi ma ngi fi résistant jabar soxlawu ma doom pour l'instant ma ngi doyloo yalla ak jullem ak kurusam <laughs> voilà ngay dugg ci lolu léegi ñu ray la dañ lay ray ñom ñoo lay rey ñom ñoom foofu politiciens fa lañuy jaar rek sank la nga dee <laughs> sa waay doy na sëkk pour l' instant doy na sëkk merci ni ma koy dundee nii mi ngi neex maa ngi ci jàmm di xare di rayante sama xel new yooyu sax nekkul si maa ngi ci sa euh, doyloo suñu borom di di xare point pour le soxlawu ma kenn soxlawu ma benn jigéen kenn ku nekk sama wet soxlawu ma kenn bu Macky Sall tey ji fu mu nekk nii boo fa takkoon jabar sax bàyyi ko Sénégal Macky Sall kidnappé ko duulal ko xam nga dañoo mën a fen sosal ko ñu ngi yow suba observateur yu mëna a dul ne dañoo jàpp jabaru Mollah Morgun ak 45 kilo de drogue 45 kilo de drogue ak domam ñi nangam japp sab jabar japp sab dom nak dila misère lo dila misère lo <laughs> dila bëgg ray rey sa xol bi di shine ñi ne sa jabar lañ japp 45 kilo ya mba eh, sa sa doom la eh, yoré won eh, yo yo yow <laughs> wala ñu jaar ci suuf sax di teudé sa jabar nak diko teudé di jaral na leen milliard jox ko sa jox ko sa jabar di tëddee sa jabar nag pour metti tal la jël fu photo sa jabar taatu neen yónnee la ko <laughs> ne la di nga noppi de nopp cuut kii du sa jabar ah, ah, ah. kii du sa jabar sa doom a ngi nii tëdd ñu ngi koy ñam ni gis nga vidéo ñu ngi koy ñam-ñam yi metti nga ngay eh, nopp noppi waa ñu noppi loolu ñu génne nday vidéo noppi loolu ñu génne photo waaye yow booy yooyu duñ ci nekk jaajëf waay jaajëf jaajëf jaajëf sinab bi ah yee Mawla Mawla. yee jaajëf jaajëf yaa fi ne. ah dëgg la dëgg la. yaayi dëgg la dëgg la maa lay bëggee <laughs> mais yow yow tam yaa ngi fi de. yaa yaa ngi fi waaw kon yàlla nañ fi nekk rek. Hmm. mën ngeen a dugal trop mën naa yaa fi nekk kàcc man man dëkk bi xanaa temps yi yaa fi ne fi xew. <laughs> man réew mi kon daje bi la yaa fi ne c'est pas compris yaa fi ne moom lan la. ku génne terme boobu terme caga jooju ku ko génne yaa fi ne fu fu ma ne.

maa ngi newoon ci développement yi benn ab xet ma yaa fi nekk ak ñu kenn xamul yàqal na ma sama sama eh, développement fu nekk nii Sénap na ma de yóbbu na ko de Sénap na xaw ma fu mu koy yóbbu nag nee na ma am ma am ci benn Sénap yóbbu na Sénap ba de xaw ma fan la ko yóbbu ak lan la cay def man réew mi dinañ ma dofloo foo romb ñu te arrêté la Sénap la dóor la yaa ne dem ak moom te doo ko gisaat parce que ma yoruma Sénap man ña ma yóbbu rek xaw ma fu ñu ma yóbbu nag <laughs> mbaa duñ dem jox ko Macky ne ko sama doomu ndey la ñooy nekk yàlla baax na yàlla doon lu baax rek donc bon lii de mes revenus lu ma doon wax mooy lan nee naa leen euh, jabar gars yi ay <laughs> ay kutu mbaasaan lañ te jabar moom bu amul diine diine diine dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg fooye ko yomb na jabar jigéen dafa dafa rax saytaane bo fi bayon sap jabar Macky Sall xex bu ma koy xex ni jaral nako 10 milliards jox la 10 milliards Marième fay lay jox 5 milliards Macky Sall jox la 5 milliards. ñu boole la ab ab ab ab man mu japp sa jabar juutal tëddee def vidéo yi sap sap xolal ñi toroxal leen bañ na tortu wër na yàlla. vidéo sa caméra ba buñ koy def sax xoolal dañuy doxan sa jabar te caméra ba buñ koy def sa jabar du ko yek ñu door ko fenn di caméra sa jabar ñukoy koy ko depp ko dippi ñu jël yónnee la la te fokk noppil kii du sa jabar nga ah, ah, ah. moo tax man yooyu mayu ma leen porte yooyu stratégie stratégie mayu ma leen man kan la ñuy jàpp kan lañ kuñ fo ñan lañ foog ni sax bu ñu leen laalee ma ma ma noppi sama waa famille ñu ñëw jël ay pëna la kër ga sëf taal man leen tey acca na tàkk na tàkk tey rek ma ñàpp seen maam ba dañoo tiit ba naan non moo taal këram moo taal këram parce que xamul tax parce que dañoo foogoon ni buñ jaaree ci taal kër ga damay tiit na <laughs> noppi fekk ci laa gën a féroce jour boobu laa génne leen rey leen leen suul leen leen rey leen paa bi dem ngeen suul ko suul leen paa bi ba la fa fekkee maire bi woo leen ko ci rey leen maire bi tamit ngeen suulaale ko le combat continue léegi le combat continue acca acca troupe ne eh, ki dof la de kon <laughs> ndekete kii boo kii boo taalee jël rey ñu fa nekk yëpp du kon ko ne combat bi kon ñoom dofuñu dañuy jéem a jaar fu ñu la mën a toroxalee fu ñu la mën a nappee fu ñu la mën a noppiloo bañ ko jaarelee ca papa ma gën a dëgër gën leen wow ne leen yéen man waaye boo leen rayee paa ma suul ko eggale combat bi boo leen ko mais <laughs> ñoom ñëpp ñaata ñoo fi am papa ak yaay ñu dee ñu suul leen ñu kon ne combat bi dañ dañ maa mën a teree <laughs> mënu ma ko jooy ay ah boo ko jooyee benn fan ñaari fan la dama leen di suul continuer damay continuer sama combat damay continuer am donc ñoom xam nañ ne donc waa ji ay di ko la ci papa naan da ngay napp papa jeeg da ngay day day gën a sàng day gën a sanguinaire sax <laughs> voilà te imagine toi ñun buñ def buñ jaar nañ papa yaay mu cóol kon dañ fan lañ doon jaare jaar nañ papa yaay frère sœur ñëpp nekk ci biir mu cóol ma gën a tàng